ngir seetal seeni loxo jëfandiku leen gel main Valda Val d'Afrique moo leen di may Sud Nutrition asalaamaaleykum mbokk déglukat yi docteur Bintou Cheikh Seck maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay yi tey ci suñu chronique numéro 260 lu ñuy waxtaanee mooy naka la ñu war a lekkee ci weeru koor gi ngir des ak wérgu yaram docteur weeru koor gi mu ngi jege si nag da ngay wax ci koor lan lay def ci wérgu yaram. gëstu nañu ba gis ne ni ki nga xamante ne dafa woor weeru yàlla mën na indi wérgu yaram. gis nañu ne ni am na salte yu bari yu muy génne ci suñu yaram. am na salte yu bari yu muy génne ci boutique bu mag bi nga xamante ne mooy nañuy wax le colon yoo euh, xam ne koor gi daf koy génne suñu yaram gis nañu aussi que ñi nga xamante ne xëy na seen biir da xaw a rëy am graisse euh, koor gi day wàññi graisse boobu dina wàññi aussi graisse bi nekk ci deret bi ba nga xamante ne yu mel ni ay cholestérol ak yooyu dañuy wàññeeku ci deret dina wàññi aussi euh, suukar bi nekk ci deret bi ñu koy wax glycémie ci ñi nga xamante ne dañuy faral di am diabète wuñu sax mais seen suukaru deret dafay xaw a day xaral di yéeg loolu mën na ko mën na ko faj euh, dina aussi gis nañu ni ci ñenn ñi nga xam ne seen tension dafay xaw di yéeg ak di wàcc dafay réguler tension boobu waaye lii yu baax a baax yi yëpp yi koor gi di indi euh, nit ki mën na ci jot ci kaw mu lekk-lekk bu sell ci weeru koor gi. kon nag docteur naka la ñuy def ngir am lekkin bu sell ci weeru koor gi. alors lekkin bu sell boobu fa muy tàmbalee mooy nit ki dafa war a xëdd xëdd d'ailleurs sax yonent bi sallallahu alayhi wasallam diggal diglee na ko waaye gis nañu ci science dafa am njariñ parce que ku xëdd maanaam ndékki mooy ki nga xamante ne dafay préparer yaramam ci koor boobu nga xamante ne non seulement du lekk mais aussi du naan alors xëdd bi dafa war a nekk ñam boo xam ne dafay dafay euh, indi ay ferñeent waaye du du ëppal ci suukar du ëppal ci graisse du ëppal ci xorom Euh, mooy xëdd xëdd mooy ndikki bu normal maanaam nit ki bu xëyee jël kafeem wala ataayaam wala kenkeli baawam euh, daal di ci daal di ci boole muróom euh, ci muru bi mu def ci bu ko fromage wala ton wala desitu reer bi wala wala tuuti beurre Euh, bu ko neexee jël benn euh, xeetu meew naan ko wala mu nekk soow wala ndaru soow ba noppi teg ci fiiwam loolu mooy ndekki bu normal mooy xëdd bu normal am na ñoo xamante ne li leen gënal mooy lekk fondé wala lekk laax boobu yëpp yooyu yëpp baax na mais toujours rek ñu teg ci fii alors am na yoo xamante ne dañ ko war a moytu ci xëdd bi parce que ku ko moytuwul aussi dina la sonal loolu ci bë ci euh, bëccëgu koor gi benn bi mooy ñu faral di moytu def café bu fort wala ataaya bu fort di ko naan euh, ci xëdd bi ndaxte loolu day tax nit ki di perte ndox mu bari te bu boobaa day gaaw a mar moytu bépp xeetu gâteau viennoiserie ay croissant ay ay beignet ay euh, ak yeneen yi mel noonu nga xam ne ñu bari graisse bari suukar parce que yooyu ku ko lekk rek jàppal ni sa yaram dina ko dina liggéey lu baree bari pour mën a digérer loolu su ko defee ñooñu xëdd xëdd yu dun yooyu ñoom ñooy toog ba ay midi une heure ñu mel ni ñu sonn complètement dootu ñu mën a ci dara parce que boobu fekk na sonal nañu seen yaram euh, ndax ñu xëddee woon euh, ñu moytu également bépp xeetu jambon ak saucisson charcuterie yi nga xam ne moom la ñuy lekk euh, di ko lekk ci xëdd parce que yooyu dañu bari xorom Euh, charcuterie bi ak wala fromage bu bari nga koy lekk ci xëdd bi baaxul parce que dafa bari xorom te ku lekk xorom su bari ci xëdd dina indi euh, mar bu bari aussi euh, bu bu 10 heures 11 heures commencé mar bi jàpp ñu. donc nañu bàyyi xel ci yooyu te xam ne ni même bu fekkee ne nit ki mënul xëdd am na ñoo xamante ne lekk lii yëpp ñi ma wax nii yëpp ci suba si teel noonu mënuñu ko mais même bu fekkee ne mënuñu loolu nañu au moins yeewu jël fruit mën na nekk ay tàndarma et puis naan ndox bala ñuy tëdd at docteur waxtu ndogu lan ngay joxe ci tegtal ci lu ñu war a lekk. waxtu ndogu bi lu am solo la euh, te euh, li ma bëgg nga xamante ne at bu jot rek moom lay euh, moom lay bamtu parce que dafa am solo. mooy ne gis nga bu ñu wooree ba ngoon benn benn euh, ñam rek la ñu lekkul mooy añ te añ boobu euh, bañ ko lekkulee bañ ko lekkulee da suñu yaram moom adapté wu ci loolu ba nga xamante ne bu ñuy euh, dog suñu koor waruñu lekkiwaat donc suñu ndogu boobu ñuy def fii Sénégal nga xam ni dañuy teg seen seen seen mburuut lu nekk ñu teg ko ci def ko ci loolu moom dañ ko war a bàyyi ndaxte ñaa dañuy dafa mel ni rek ngay lekkiwaat te loolu warul te aussi bu ñu nagu euh, añ ba ñu añul woon kenn mënu koo rattrapé añ boobu jàll na donc li ma bëgg a wax rek booy ne nit ki bu wooree ba ngoon benn ñam la war a lekk te ñam boobu mooy reer te bu ko deful aussi ndogu ba noppi di reeraat daf mel ni da nga lekk ñaari yoon te bu boobaa euh, suñu yaram dafay dafay gàddu rek lañ ko jox li ëpp lañ ko jox mu denc ko ne nii la nag sénégalais yu bari di def ba nga xamante ne dañuy am yaram ci koor gi te loolu doy na waar parce que koor gi bu dul leneen dañu war a jeex plutôt que di am yaram donc ci ndogu bi daal benn ba juróomi juróomi tàndarma doy na sëkk euh, suñu neexee ñu teg ci benn boisson chaude maanaam café ataaya kenkeliba Euh, et puis bu fekkee ne ñu bëgg lekk dara foofu euh, bàyyi ba géeyee paase ñu door a reer lañ ci mën a teg te mu baax ci suñu wér-gu-yaram mooy supp légume supp boo xam ne ci kër gi lañ ko toggee def ci légume ñu ci ñu neex ba noppi daal di ko daal di ko purée mixé ko lekk loolu ba noppi xaar reer ba bu ñu ba pare. reer boobu que mu nekk suñu ceeb yi wala mu nekk euh, suñu ay ay yeneen façon plat ay plats internationaux war na am ndawal war na am li ñuy wax féculent maanaam lépp lépp luy pepp ak pomme de terre ak yooyu et puis surtout li gën a am solo ci weer boobu mooy il faut que am légume ba ñu xam ne ni au moins xaaj un tiers de li ñuy lekk noonu ci reer bi mu nekk ci bool bi wala mu nekk feneen ci palaat euh, ay légume la war a doon alors bu ñu lekkee te ñu moytu aussi ñam yi nga xamante ne reer yi nga xam ne dafa dafa niin mu nekk ay reeru fiiriir wala ay reer yoo xamante ne diwlin bi def cee fës ñu moytu ko bu ñu reeree ba pare teg ci benn ba ñaari fii baax na mën nañ ci tegaat ñaru soow wala nañ ci tegaat kaasu meew mën nañ ci tegaat euh, benn benn yaourt loolu ku ku la neex mën nga ko def mais c'est pas obligatoire alors fi may mujjee mooy euh, ndox mi na ñu fexe ba du ko dalee fa ñu dogee ba bu ñuy tëdd ñu fexe ba naan à peu près benn litre ndox xëy na di ko naanee par euh, xaaju kaasu ndox fanweeri simili bu nekk rek ñu naan benn xaaju kaasu ndox moitié demi verre d'eau ba heure bi ñuy tëddi su ko defee ñu euh, am ndox mu doy ci suñu yaram. loo xalaat ci boisson sucré yi pâtisserie ak yenn ñam yu neex yi nga xam ne ñu bëri dañ koy faral di taamu ci weeru koor gi. alors li ma ci xalaat mooy li may faral di wax mooy ne ñam yooyu yëpp mu doon ay jus. te xam naa ne ñu bari euh, ay ay bisaab moom buñ ko naanul ci koor gi dafa mel ni wooruñu mais euh, ay jus mu nekk jus locaux yi wala yeneen yi ay gâteau ay viennoiserie comme ay ay euh, croissant ak pain au chocolat yooyu yëpp ak ak yu ñiin yi comme ay neem ak ay ay fataay ak yooyu yëpp xam nga dañuy ne ko xamante ne da nga bëgg am wér gu yaram yooyu yëpp da nga ko war a néewal ci sa ñam Euh, di lekk li nga xam ne suñu suñu yaram moom la soxla li nga xamante ne bari na graisse bari na suukar ñu néewal ko loolu ci suñuy euh, suñu lekk di ko lekk rek occasionnellement buñ ko nammee donc loolu noonu ma wax noonu ci euh, koor gi la gën a am solo encore koor gi waruñu cee topp di lekk ñam yi nga xamante ne bu dul koor kenn waru ko topp di ko lekk donc dafa war a nekk lu occasionnel loo xam ne yi toog mu ko lekk ci tuuti bu jeex ñam yooyu topp ko di ko lekk ci weeru yàlla am na ñoo xamante ne liñ koy lekk ci koor bi duñ ko lekk ci at bi ngay nga jël loolu yëpp concentré ko ci weeru koor boobu mën na indi jeexital yu bari mën na dem ba nga xam ne di digestion bi dootul jaar yoon dafay day day yéex indi ay euh, problème digestif en général indi seere indi indigestion indi ay ballonnement indi yaram comme ni ma ko doon waxee dinañ dem sax ba gis ne ni ci weeru koor gi crise cardiaque yi day faral di yokku ak AVC yi ndax lii euh, donc li may tegtal suñu auditeurs yi mooy au lieu ngeen dem di jënd te sax dafa cher yooyu yëpp euh, dépense bi di yokk ci koor bi dem ci jënd yi ma yi ma dim nii li gën mooy ñu def xëy na togg togg bu neex togg boo xamante ne xëy na duñ ko faral di togg euh, def ci yoo xamante ne ku doon togg suppu kànjaam def ci ay crevette am def ci ay jum xuupam ay yoo xamante ne xëy na boo daan togg ceebu jën avant corps bi daana ko ci def loolu moo gën a am solo su ko defee waa kër gi yëpp am wér gu yaram. page Facebook. mooy Sud Nutrition ma leen di ñaax ngeen ñëw laaj ñu seeni laaj.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 Bonjour chers auditeurs, docteur Bintou Chersek, bonjour. Bonjour Rosalie. Chronique numéro 260, savoir manger pendant le ramadan pour une bonne santé. Docteur, le mois de ramadan et de jeûne approche, quels sont les effets du jeûne sur la santé Alors pendant un mois peut être très bénéfique pour la santé parce que ça, ça favorise euh, l'élimination des toxines du corps, Euh, c'est un excellent aussi détoxifiant de, du, du, côlon, du gros intestin ou du tube digestif en général. On a vu que aussi ça réduit la, la graisse abdominale, donc le ventre, le gros ventre. Ça régule le taux de lipides dans le sang et pour être plus précis, c'est que ça régule le taux de cholestérol, disons, dans le sang. euh, ça régule également le taux de sucre dans le sang. Donc, des personnes qui ont tendance à avoir des, des taux, un taux de sucre élevé dans le sang avec le jeûne et des personnes que les, les médecins, que leurs médecins ont autorisé à jeûner, à qui on a donné le feu vert pour jeûner, et, et bien quand elles jeûnent, leur taux de sucre a tendance à, à baisser. Ça régule également la tension artérielle. Mais alors, tous ces bienfaits du jeûne, on peut en bénéficier, mais à condition de s'alimenter correctement pendant le ramadan. Alors, comment s'alimenter correctement pendant le ramadan Donc, comme j'ai dit, Rosalie, pour profiter des effets bénéfiques du jeûne et être en plus en pleine forme pendant le ramadan, il faut deux choses. Premièrement, il faut prendre le petit déjeuner, ce qu'on appelle le khud en wolof. euh, une heure avant le lever du soleil. Euh, et c'est pour préparer l'organisme au jeûne sec. Il ne faut pas sauter cette étape euh, de la journée de jeûne. Alors, ce, ce petit déjeuner au repas doit être nourrissant, mais sans excès de sucre, sans excès de gras, sans excès de sel. Alors, c'est un petit déjeuner classique, c'est-à-dire on a du pain, une bouillie de céréales comme du fondé ou du lard, mais avec le pain, euh, un accompagnement protéiné comme du fromage, du, thon, de la un reste de viande de la veille, et ensuite un, un produit laitier euh, si, si euh, besoin, et surtout, surtout un fruit. Et en plus de tout ça, on peut prendre évidemment un café, un thé un, euh, ou du quinqueliba euh, comme au petit déjeuner. Alors, il y a des choses, par contre, à éviter complètement parce que ça nous fatigue pendant la journée de jeûne quand on les mange euh, au khud. Il faut éviter de boire du café ou du thé trop fort parce que à ce moment-là, ça va augmenter la perte d'eau pendant la journée et du coup, on a très soif très vite. Il faut surtout éviter les viennoiseries, les pâtisseries, les, les euh, parce que ce sont des aliments très riches en gras et en sucre et leur euh, vous voyez qu'elles préfèrent ne pas manger le khud parce que euh, elles, fatigue. Mais parce que leur khud était trop gras. Ensuite, il faut éviter les charcuteries surtout et les grosses portions de fromage au khud parce que ce sont des aliments qui sont très salés, évidemment, et cette, forte teneur en sel déclenche une sensation de soif très rapide. À défaut de prendre un petit déjeuner complet au khud, il faut au moins prendre un fruit et boire de l'eau. Et quoi manger au moment de la rupture du jeûne il ne faut surtout pas reprendre le petit déjeuner. On l'a déjà pris au moment du khud. Euh, on ne peut pas non plus rattraper le déjeuner qui a été sauté euh, pendant la journée de jeûne, puisque l'organisme s'est déjà adapté au fait qu'on allait sauter le, déjeuner. Ce qu'il faut au moment de la rupture, c'est manger un seul repas. En sachant quand on mange un nogu, comme on dit, plus le dîner, on a Et à ce moment-là, le corps, il est très content parce que ça lui donne beaucoup d'énergie à stocker. Et c'est comme ça qu'on grossit pendant le ramadan. Ce qu'il faut, c'est donc couper avec une à cinq dates maximum. On n'est pas obligé de manger des dates. On peut couper avec de l'eau, on peut couper avec n'importe quel autre fruit. Mais traditionnellement, on prend les dates. Il ne faut pas exagérer avec les dates. Donc une à cinq dates. une boisson chaude si on veut, ce n'est pas obligatoire, mais boire de l'eau. Là, on peut prendre tout au plus une soupe de légumes. C'est-à-dire que si on a vraiment besoin de manger quelque chose avant le dîner et après la dernière prière de la soirée, on peut prendre tout au plus une soupe de légumes faite maison. Et ensuite, le dîner à, n'importe quel moment, qui peut être un plat sénégalais ou euh, un plat euh, international. Mais dans ce dîner, il doit y avoir évidemment des protéines animales, viande, poisson, volaille. Il va y avoir des féculents, c'est clair, mais il doit y avoir surtout beaucoup de légumes, c'est-à-dire au moins un tiers de ce qu'on mange au moment du dîner, ça doit être constitué de légumes, euh, et en évitant surtout les plats gras au moment du, du, du dîner, les plats où il y a beaucoup de friture, beaucoup de crème, des plats où évidemment la matière grasse ajoutée ou l'huile est visible, on évite. à très important pour le transit. Beaucoup euh, noteront que pendant le ramadan, on a tendance à, avoir, à être constipé. C'est parce qu'on ne boit pas pendant la journée, puis on mange moins euh, pendant la journée. Euh, et donc, un à deux fruits pour activer le transit et faire le plein de, vitamines. Alors, après, on peut prendre un produit laitier si on, veut, un yarousso ou un yaourt. c'est possible, mais c'est tout à fait optionnel. Une autre chose, un autre point, pendant la, à partir du moment où on a rompu le jeûne, c'est qu'il faut, euh, il faut bien s'hydrater. Et on va essayer de boire à peu près un litre d'eau euh, entre le moment de la rupture et le moment du coucher. Et ça, on va boire ça par demi-verre d'eau toutes les demi-heures. Euh, de la facture jusqu'au moment où on va au lit pour pouvoir euh, avoir notre fameux euh, euh, litre ou un litre pendant la journée. Docteur, que pensez-vous de la consommation régulière de boissons sucrées, de pâtisseries et de gâteries qu'on constate dans les foyers pendant le mois de Ramadan il est très important qu'on retienne une notion très simple, c'est que même pendant le Ramadan, la consommation d'aliments trop riches en sucre et ou en gras, comme les jus de fruits, les doit être occasionnelle. La surconsommation de ces aliments-là peut entraîner des problèmes de santé plus ou moins graves pendant le ramadan. On a déjà euh, un ralentissement de la digestion parce que, comme je disais, quand c'est très riche, en gras, en sucre, la digestion est beaucoup plus lente. On peut avoir des troubles dyspeptiques, la constipation, des indigestions, des ballonnements, et puis de la prise de poids. Comme je disais tout à l'heure, ce qui est complètement paradoxal, on doit mincir plutôt pendant le ramadan, on ne devrait pas grossir. Ça peut entraîner un risque de crise cardiaque et d'AVC. Donc, à la place, au lieu de manger euh, ou d'enrichir son alimentation avec des aliments qui sont trop riches en sucre et en gras, dont on n'a certainement pas besoin, il faut plutôt euh, essayer d'améliorer euh, la qualité des repas, préparer des repas plutôt festifs,